واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي جلتي نولندي نيو دي لين زياره di jiital ci nuyoo bi di ko boole ak ñaan suñu kilifa yu réew suñu mag diine ñaan yàlla suñu boroom sàmmal ñu leen sa sàmm di ndokkeel ñépp ci weeru màggu tedd wi di soxu ramadan al mubarak eh, bokk yi del siwaat nañ ak yéen seen jotaayu wasiyatu sabaax wasiyatu sabaax di dénkaaneel suba ngeen ci ànd seen doom seen taalibe seen xarit Moustapha Mbacké Diouf fii ci Darmanko TV ñu nekkoon ci buntub fadailul infaq muy ngëneel li nekk ci jël solo si nekk ci jël sa alal di ko sànq ci yoon yàlla buur bi subhanahu wa taala tey nag ñu fas yéene tàmbali baabu salaa muy buntub julli muy asalaatu wa ahkaamuha julli ak ay atem di tomb bu am solo julli nag dafa bokk ci ponk yi gën a ci lislaam suñu boroom subhanahu wa taala soññe ko lu bari ci alquranul karim atte moom julli dañ naan farada ci képp ku gëm yàlla julli farata la ci yow eh, tënku ci laaya yu bari ñu mën cee jàng ji suñu boroom wax ne fa aqimu salaata inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta julli yàlla da ko utal eh, ay waxtu saa yu waxtu jotee nañ ko def moo suñu boroom ne na ngeen julli da ngeen julli da ngeen taxawal julli taxawal julli xam salaat mooy waxtu wu nekk bu jotee nga julli ko julli ko cim jàpp boo amul ngànt rukoo yaak sujood nga bañ caa damm dara jàng ci alxuraan ju wër peng ñaan ñeen ci def yépp nga def ko teewlu julli ga jàkkaarloog sa borom subhanahu wa taala xàmme say faat ak say sunna ak ngëneel ya bu ne ci nga respecté ko indi ko loolu mooy xaam salaat suñ borom nee na kon waxu sax julli leen yem ci waaye fa aqimu salaata na ngeen taxawal julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne buniya lislaam ala xamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaay zakaati lislaam ci juróomi ponk lañ ko tabax bu ci njëkk bi mooy yaari baati seede yi gëm yàlla ak ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak ab yonentam alayhi waaye nat azaka aj màkka woor weeru koor kon yooyu boo ko defee eh, danga maanaam joxe nga li suñu borom santaane suñu borom nee na julli ci ponk yooyu la bokk dal ne asalaatu imaadu diin julli nag mooy kennul diine mooy kennul diine ponk bi gën a ci lislaam mooy mooy julli julli moom moo sos diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn jullit boo xam ne julli farata dana ñëw nga rafet sam njàpp ragal ca yàlla rukkoo nga motal ko lu dut ne bakkar bi nga defoon ci julli googu ba julli ñëwaat yàlla dala koy jéggal bu fekkee indiwa bakkaaru yu rëy yooyu rey nit ak njaaloog lu yem nekk yooyu kon julli lu am solo la delu waxaatoon moom yenn bi salaa salaam ne julli tispaar takusan timiskee suba nee na dar gënu koo rëy nee kaay ma jox leen misaal bu fekkoon ne eh, yàlla bor bi subhanahu wa taala dafa dogal kenn ku nek am ci sa buntu neek am ci sa buntu keur mu am fa sa buntu keur nga am fa ak dex gu neex ta bari ndox sa yo xëyee jeer sa njàmpeeg sa sabu dem sangu ba set bo julé suba heure suba nga def ko bu tisbaré nga jëlaat sa njàmpeeg sabu dem nur fa yag fa lol sangu takusan nga def non timis nga defoon gee ba muy juroom yoon yent bu ne nax bes bobu da nga ci am tilim ndax dara dana des set des sa yaram ci tilim ñu ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la mel julli goo julli ñu fóot say bàkkaar masalu salawaat alxamsi ka masali nahrin asbin gamrin bi baabi ahadikum yaxtahimu fii kulli yawmin xamsa maratin fama tarawna dalika yubqi min dirni قالوا لا شيء قال فإن صلاة الخمس تصب الذنوب كما يصب الماء الضرر ني أه نخبة مودي دف تلم noonu la julli juróom yooyu di def bakka kon lu am solo la ñu bàyyi ci xel baa xam ne eh, ci santaane suñu borom subhanahu wa taala ci la bokk julli googu nag daa am ay sart mais sart la ca jiitu mooy da ngay nekk ab jullit fekk nekk ab jullit julli waru la lu mu xumb-xumb lu sëriñ bi neex-neex الإنغراشن ري ري جولي وامنا أميرت أن نقاتل الناس حتى يسألوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عظم منهم دماءهم بكم يعني بيوخن أني أمنا دروا ريانت أكنيتني دقلين غورنت النيوم الجاسي waye buñu waxe ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammad rasulullah joxe azak julli joxe azaka seen deret ñoŋ na ci man amatuma dora droit def leen dara kon bokk rek sart yi da ngaa war nekk ab jullit ba pare ñaareel bi mooy faw nga am xel faw am xel gone dañ koy digal mu julli bu amee juróom-ñaaret eh, bu amee fukk ñu laal ko eh, sonal ko ca waaye lépp digal ko waaye du loo xam ne eh, dañ naan bu ko def am bàkkaar kon gone julli du ko war fileeg nekkul ku majeur waaye da ko war a jàng ki amul xarit war da julli muy dof bi feek ndof gi dañu ci moom bokk na ci it dugg waxtu wala ngaa julli na waxtu yu dugg inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta faw waxtu julli jot nga door a julli kon du xooli waxtiha bu julli jot dul kenn du ko anticiper lu dut ni la ko foqahaa yi waxee boo dee tukki mu ngoog wala xeet yooyu bokk na ca bokk na sart yi tax nga julli nga set ci dereti wasin ak set ci mbaax te loolu mooy ki nga xam ne moom mooy jigéen jigéen bu gisee mbaax du mën a julli bu yoree dereti wasin du mën a julli waaye nag bu paasee julli du ko fay bu dee koor nag du mën a woor waaye bu paasee day fay ay kooram sart yi tax julli wër nag bokk na ca nga laab boo waree sangu sangaayal janaba demal sangu jiko boo waree jàpp nga jàpp لا يقبل الله الصلاة بخير التحول سوني برام سبحانه وتعالى نينا دوما نانغو بن جولي لودن برام دفالا كون ناني سات تي سوني يارام سات تي سوني ييري سات تي سوني يارام سات تي سوني ييري سات تي اه، سوني سوني سوني ليغا خامني موي سوني بلاص بي جولي بوك نا تي لي تاخ جولي وريت غا مور ساورا خذوا زينتكم عند كل مسجد waxuñ dara sax waaye waxu le muur waaye suñ borom daa bëgg saa yoo lott set waaw jigéen buy poxtaanam feeñ bu mbaggam feeñ bu ndoddam feeñ bu dëndam feeñ bu ay waggam feeñ léegi gis nga jël ko rek daal muuru ko lëmas déedéet jigéen daa war a sol rab bu ñëw ba ci tikki jaray sol ba ci dojoor yi daal di muur boppam loolu mooy julli waaye bu ko deful muur awraam du na a julli bu dee góor bu solee am mbubb mu mag eh, nga xam ne eh, bi mu ko solee ci baat bi wàcc na ba ci weesu bëtiwam yi baax na bu solé am bobit mo xamné sol nako ci yaramam sol tubéy jo xamné pantalon la loy baxna wala caaya lool bu ko defé ay awram dana sàngu bok na ci sarti tax julli wërit moy nga jublu xibla bo julli da nga jublu xibla bo julli xibla sa julli duñ ko mën wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu yonent bi salaa salaam ne fu ngeen mën a jublu len ci wotu kaaba gi foo mën a nekk da nga ko jublu fa kon yooyu mooy sart yi tax nit ki julli euh, julli nag noonu la amee ay farata ak i sunna ak i ngeneen bokk na ci farata julli mooy yetu salaatil muayyan nga yéene te dañu wax ne imaam waa fi nee na boo jullee xamoo farata ya ak sunna ñu ne la ah lan moo ci farata ak lan moo ci sunna nga ne man damaa gis ñi def rek ma def imaam waa fi nee na sa julli ka dañ koy xoolaat kon bokki nañ teelu bu baax ñu xàmmee faratay ak sunna bokk na ci faratay julli yéene julli gi nga julli nga yéene ko yéene mooy nga fas ko ci sa xol nga fas ko ci sa xol nga fas ci sa ne yaa ngi julli waaw du la ñuy wax sa wax sa sa làmmiñ naan fas yéene julli waxtu sàngam déedéet da nga koy yéene ci xol lañ koy fas waaye du la wax ci kaw bu dee ci julli yéene gi nag da koy lëkkale ak kàbbaru armal allahu akbar ji ngay wax mooy ji ubbi julli moom ngay lëkkale ak yéene bi kàbbaru armal googu ci ñaareelu farata la moom farata la boo ko bàyyi julli ga du baax kon yéeneel kabaru kàbbaru armal ngay boole ko lëkkale ko ak yéene kon am nga ñaari farata mu ngoog innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa jëf yi day kenn ku nekk la ngay yéene loolu rek lañ lay fay waxuñ la nga ah moom daal ah dañuy julli kii koor nangam ah jàng alxuraan kii ah yéen rek am sol déedéet yéene ju lëkkalu ak jëf la yàlla defee yéene ja yàlla feetu ànd jëf mooy yée mooy jëf joo xam ne yéene joo xam ne boroom daa mën da jëf yéene joo xam ne mënoo jëf nga yéene yàlla mën na laa fay waaye nag yéene ji yàlla di fay mooy yéene ju lëkkaloo ak jëf waaw bu fekk boo ko mënul nag yéene mu leer man day amoon naa yéene def nangam parce que nangam ci nangam waye nak yàlla xam na ni am nga yene ji yàlla dana la fay waye nak waxtu julli jot wala jàng alxuraan jot wala def lu bax jot nga mën ka par nan yàlla xol lay fay yene lay fay xol bi yene lëkkale ko ak jëf jëf joju la suñu borom di fay liñ la bëgg wax fofu moy jëf yàlla yene lay fay moy bo jëfé to yene wo jëf te day firaku zéro lay nga ci am bok na ci faratay julli kabbaruk arma wax nañ ko léegi bok na ci faratay julli alqiyaamu li takbiratil ihram taxawaay bi nga taxaw ngir kàbbaru armal loolu ci la bokk bokk yi bokk na ci faratay julli ar mooy ruku mooy nga jàpp jàpp sa nga jàpp sa bëti oom jàpp sa bëti foofu nga jàppe wax euh, subhaana rabbiyal azimi ruku boobu farata la jóg ci rukkoo ba siggi ba ñëpp nga xam ne siggi nga it kookee farata la dañu bañ nga ne allahu akbar allahu akbar sigg siggi mel ni kuy kuy bonde da ngay allahu akbar sëgg sëggaay boobu nga sëgg mooy rukkoo siggi bi nga siggi ba taxaw loolu it mooy jóg ci rukkoo moom it farata la waaye am na bu jiitu ci farata yi muy jàng fatiha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab كجولي توتاري وفاتها سجولي كندو كنمو كون فاتها من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتة الكتاب فهي خدا فهي خدا هي خدا خداج خير تماما كجولي توتاري وفاتة الكتاب سجولي موتو بوتر الكامل بيبكي سجولي موتو كون بوك نتي ليتا سجولي وير نتاري فاتها فاتها نك دم جانكو waxuñ la nga alhamdulilah rek alhamdulilah ba mu jeex noonu rek dañ la koy wëralal arab bu nekk ñu wax la nañ koy waxee bu fa nekk naan man mënuma prononcer du man arab déedéet du mbirum arab alquran la li la sa làmmiñ nga mën ko en tant que sénégalais nga jàng ko ñu wax la ko ba nga mëne ko noona xëy na nag yan gàlluñ la ca nag euh, boo mënul làmmiñu arab nga ak déedéet nga nga nga waaye na araf yi génn. sawtu yi baat yi nga wax ko niñ ko war a xeek maska yi xafs laa jàng wala eh, si laa jàng nga jël benn riwaay yu jàngala ko ba mu leer ndax kenn ku nekk business ba ngay def fex nga mbooleem technique yu muy ànd fex nga ba mu ba maîtriser ko te lii tax nga mucc ëllëg yomal xëyam mucc ci bàmmeel nga lànk doo ko def ko loolu suñu borom du ko seetaan ngaan yéene rek mënuma nekk du ma arab ak déedéet du problème arab fexeel ba faatiha ji nga ne dama bëgg ci riwaay yi ñuy jàng alxuraan njàngin yi benn njàngin laa soxla ma mën ko alxuraan ji ma koy jullee muy njàng mu wër sëkk mbokk yi nga gis kuy tari fatiha boo xoolee li muy tari daanaka du doon alxuraanu karim te mën ngaa dem nga wër ko mokkal naa fatiha demal ñu wëral la ko ba mu wër ndax vérifier nga lu gën a ñàkk solo lool te lii mooy li ëpp solo kon qiraatul fatiha ci sar ci faratay julli eh, la bokk bokk na ci faratay julli sujoot ak jóg ci sujoot mooy teg say jë sujoot bokk ci faratay julli mooy nga dal nga dal yemoo bañ di baj baj waaw boo sujoodee boo boo tàllalee say ka sujoot nga nga sëgru ko nanga nga na nga yemoo boo siggee na nga yemoo waaye lépp loo cee defit ci activité yooyu na nga fexe ba dal boole ko ak dal ak toftale farata yi toftale farata mooy boo kàbbaree jàng faatiha sujjóot roko jóg ci noonu ñu la santaane julli bokk na ci sëlmal ci faratay julli ci la bokk sëlmal ak toogaay bi nga toog ngir sëlmal boo jullee ba julli gi mat nga jóg taxaw julli ga kenn du ko nangu kon faw nga wax asalaamaaleykum mbokk yi ñu teg foofu suñ baaraam danañ ci dellusiwaat ñëw ci sunu julli ak ngëneel yi sa Mbàkke ngeen ci àndalam di sant sëñ Mansour soxna Faat Kiné sëñ góor ñu leen di sant bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.